Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce mardi 12 décembre 2023 sur la chaîne des grands événements, sur VIP People TV la chaîne des grands événements s'informer juste vrai bataille de dañuy desandi Moussa Diop ginnaaw bu mu xamle ni que ay miinu jamaa ak achat li nga arme qui di Moussa Diop lan la wax enquêteurs yi bu mu jàkkaarloog en tout cas qui dit Moussa Diop ginnaaw bi ko placé en garde à vue de ci altine 11 décembre après une déclaration explosive yi nga xamante ni yëkkati jëm contrat jëm exploitation nga min foofa ca nord du Sénégal impliqué ki nga xamanteni moy président de la république Macky Sall ak industriel bi di Jean-Claude Mimra, ak ki nga xamanteni moy bras droit am di Diania Ndiaye ak ki nga xamanteni moy ancien ministre Ali Ngouille Ndiaye notamment ci ginnaaw lool nak suñu source mi ngi xamal ko dal ci ben information bo xamanteni qui dit ancien directeur dem di di candidat à la candidature est poursuivi pour acte de nature et jeter le discrédit sur les institutions de la République à diffusion de fausses nouvelles batay suñu source mi ngi indiqué d'al que lepp lo xamanteni def nako face aux enquêteurs qui dit maître Moussa Diop mi réitéré lepp lo xamanteni ay grave accusation la jëm ci suuf li nga xamanteni moy même source boobu ginnaw bu mu remettre li nga xamanteni moy policier policiers nek nekk sa sûreté urbaine li nga xamanteni moy ay documents yo xamanteni tay tey mën na nek ay preuves yo xamanteni ci ay waxam la ginnaw bu mu s'agiré li nga xamanteni moy mooy connaissance am jëm ci ben présumé achat bo xamanteni dafa sukkandiku ci ay armes ba nopi fofu ci présidence ba nopi daldi indi brandir lepp lo xamanteni dafa jëm ci ben conférence de presse bo xamanteni amna fofu ci samedi en tout cas liñ ci mëna a dal ki di maître Moussa Diop ginnaaw accusation yooyu yëkkatiwaat na li nga xamante ne mooy benn document boo xamante ni dañ ko jënd ay armes foofu ca présidence pour wax sénégalais est-ce que Sénégal jungle la wala république Sénégal république la. Sénégal am na droit jënd ay armes parce que Sénégal dafa am droit protéger lépp loo xamante ni ay frontières am la Sénégal dafa am droit protéger lépp loo xamante ni ay citoyens am la ak seen ay biens naka la di protéger mais ci ay armes la leen di protéger tey je crois que un opposant qui aspire à diriger un pays tu dois même pas divulguer armes yi nga xamante ni sa réew mi ngi koy jënd su dee dañ ko jënd ci présidence présidence si kan la ko jëndal turu Sénégal la ko jëndal est-ce que Macky Sall dafa jënd armes yi yóbbu ko këram est-ce que Macky Sall dafa jënd armes yi kay tey su jógee ci bopp réew bi da koy yóbbu këram yóbbaale ko armes c'est pour le Sénégal c'est pour l'armée sénégalaise c'est pour les forces de défense et de sécurité sénégalaises je crois que réew bu nekk war armée armé wu ba nga xamante ne say naatangoo kenn du la ñeme te ay armes yi nga xamante ne tey sa mi ngi koy jënd pour kan la pour assurer sa sécurité sécurité su fi amul ku nekk duggee fu nekk fan nga jëm tey yow say adversaire waruñu xam sax yan xeetu arme nga am parce que suba dañ lay préparer naka ngay ak nit ba paré war ko arme bi la am arme bi kooku su suba mën na dem wuti arme bu mën a détruire sa arme donc je crois que c'est des révélations yo xamante c'est c' est infondé immature de la part des responsables yi nga xamante dañ aspirer diriger Sénégal tay Sénégal dem jënd ji arme ci logique la ko teg ci yoon la ko teg réew moo gis da nga wara am arme da nga wara a blender sa arme tay tey Sénégal su jëndiwul arme légui lan la lan lay def kon je crois que li ñuy allégation yi ñu joxé amul dara lu ci tegu ce n'est que des mensonges ce n'est que des révélations qui no sense là. « no sense c'est diriger le Sénégal est-ce que nous am nañu xam-xam ñii maa ëpp junni xam-xam Nous sommes xam nu donc ce sont que des hypocrites avec des malhonnêtes opposants qui des gens qui ont hypocrisie intellectuelle la ñuy utiliser par rapport à leur bëpp ba peuple ñoom xam nañu waxuñoo ak intellectuels yi dañu xam ne Sénégal dafa am benn parti analphabète lañu ñooñu la ñu bëgg a naxasal seen xel pour que ëllëgee ci biir ñu gagné électorat ñooñu ba pare ñu doxalee neen ñii amuñu xam-xam kon yaakaar naa ni li maître Moussa Diop wax foofu diggante enquêteurs yi ba mu jural ko garde à vue je que no sens la mënul génnee benn preuve dafa xamante ni état moo ko wax Dakar dem dik bo mu nekkoon am na ay dossiers yoo xamante ne c'est estampillé tey képp ku ko génne won Moussa Diop mo lay poursuivre xamné que da nga def diffusion de fausses nouvelles kon yaakaar naa si ay fausse écriture le Moussa Diop sukkandiku parce que amul parrainage amul caution mu bëgg sortir par la grande porte motax pour nak ay militants mais je crois que ngor mo doon nga jàkkaarloog say militants ñi la toppoon depuis bo nga ne ah man kat wuti parrain mais aw parrain man kat aw caution wax deug yalla nañu toogaat xaar ba 2029 ñu gëna a mo gënon gënoon jekk ngay dindi ay accusations di mal ay gor plus particulièrement nga Macky Sall un président de la République n'a jamais signé des contrats minières pour wax la encore en tant que Moussa Diop bu aspiré diriger Sénégal xam un président de la République amul benn réew bi nga président de la République dafay signer contrat d'exploitation d'exploration minière ñi koy signer maanaam ñi ngi fi saytu ko jàng ko du président nekk ci administration xam ko ëllëg ak ci biir président day dem yoonam ñoom ñoo fiy def kon yaakaar na dafa amay wax yoo xamante ni te contrat bi ñu xasal signé depuis 2016 du soo nekkee président mën nga ko dindi tey gis naa yenn opposants yi naan su ma ñëwee contrat yëpp laay dindi du noonu contrat dañ ko signé jaar ci yoon contrat boo def rupture am abusif xam nga li la ciy topp barki dembu gis ngeen affaire du Sénégal lan la Sénégal ñaata milliards la Sénégal mujj fay ki nga xamanteni mooy ci contrat bu mu rupture abusivement milliards xajul ci Sénégalais les milliards yooyu mënuñu ont développé à chaque fois que ku bees ñëw bëgg rupture contrat jàppal ni que lii ci ndoddu Sénégalais lay feeñee kon baax discours bi nga ces opposants politiques ñi ngi leen des discours ne ça ne tient pas debout état pour nga yor da ngay xam état da ngay xam luy état xam luy mécanisme état xam état nu muy fonctionner xam ci la état dañu ci jungle ay Sénégal c'est une république au cas où da ngeen ko <laughs>